Perdón, un ratito más que voy a hablar en Wolof a la comunidad y luego le paso la palabra a ustedes. gannaaw bu ñu leen sante ci journée bu am solo bi bi nga xamante ne ñun ñëpp ñu ngi célébrer Magalu Sëñ Touba ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam te dina di ko ñaanal yal na leen yàlla defal jàmm musal ci seytaane te làq ñu fa yàq egul defal ñu xewal ñun ñëpp. dafa fekk nag journée bi nekk journée boo xam ne day rassembler ay nit ñu bari te ñépp ñëw fii ngir ñaan ngir jaamu yàlla ngir baalu ak donc ñu ngi leen di ñaan ngeen baal ñu ak te ñu ngi leen di baal ak di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole baal ñun ñëpp ba loolu weesoo nag la may wax du bëri ndax ku ñëw ci bés bii rekk la la tax a ñëw rek doy na la comme leçon donc mën na la jëriñ ci sa àdduna bi yëpp bu buñ xoolee ci ki nga xamante ne mooy tax ñuy célébrer tey aussi lépp loo xam ne muy àdduna luy jàngale rek mën nañ ko cee jàng te mën nañ ko cee comprendre donc wax ji jarul muy sori la ma leen bëgg a dolli kese mooy bu fekkoon ne Serigne tuubaa de doon toppandoo tubaab yi wala muy fayantoog ñoom duñu nekk fii tey di célébrer donc bu ñu àndee ak muñ te xam lu ñu bëgg fonk lu ñu bëgg fonk suñu bopp. dinañu dem ba suñuy set ak suñuy doom di célébrer li nga xamante ne ñun ñoo ko jëf d'abord donc nañ jàng ci sëñ Touba roy ci moom roy ci ñi nga xamante mooy nit ñu baax ñu nekk Sénégal nekk ci àdduna bi ndax doy nañ këpp par leçon dox nañu comme référence donc ñu sant yàlla di gërëm yàlla di gërëm sañ Touba te di kontaan lool ni sëñ Touba juddoo Sénégal nekk Sénégal liggéeyal Sénégal ak communauté mouride ak communauté musulmane lépp li nga xamante ne mooy def naa ko foofu laay dem ci côté boobu ñu ngi leen di ziar bu baax ñii nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoo nekk fii tey mooy Juan Balestretti ni ñu leen ko waxee woon mooy président fédération argentine bu collectivité fédération boobu mooy mbooloo mi nga xamante ne moo dajale dëkk yi nga xamante ñoo ñëw fii yëpp Argentine nekk fi ay immigré ñu def benn fédération dëkk bu nekk dafa am association ëpp nañ ay 45 collectivités ci la ñuy ànd dem ci autorités yi mu nekk ci autorité gouvernement yu fii wala fépp mën a doon di toog di waxtaane problème yi nga xamante ne collectivités yi am nañ ko wala immigré yi donc Juan moom descendant italien la moom mooy président bi Juan sarafyan moom waa Arménie la maanaam arménien la te moom moo nekkoon ancien président te muy nekk ci li nga xamante ne mooy commission bi aussi yor wàllu affaire institutionnelle ki xam xamante ne mooy Ordóñez waa Espagne la mu ngi fii aussi bokk ci li nga xamante ne mooy fédération bi bi Vicente waa Venezuela la bokk ci aussi ak Elena bi nga xamante ne léegi la dem muy jigéen bi nga xamante moo ñuy représenté te nekk waa Chili aussi ak suñu mbokk mi nga xamante ne aussi mu ngi fi ñu ngi koy sant di gërëm di ko gërëm macha allah Rodolfo e donc ñu sant bu baax entonces para llegar un poco Juan le presento a la comunidad le quiero decir que esta comunidad es una comunidad muy especial y están muy agradecidos, muy contentos por la presencia de ustedes hoy. El acompañamiento que la federación y las distintas instituciones que hoy están acá y otras que no están y cada día están haciendo un gran esfuerzo para acompañar a la población senegalesa que está en el país. ¿Para qué? Para no se sientan tan solos porque estamos muy lejos de nuestra tierra. Y todos sabemos que la Argentina es un país de inmigrantes y todos los inmigrantes que están acá necesitan algún apoyo. Todos los tuvimos cuando recién llegamos. Entonces, ellos que llegaron mucho antes nos acompañan porque sintieron la necesidad antes y los agradecemos Esta comunidad es una comunidad de paz que está celebrando este día de paz, de amor, de fraternidad, que está celebrando un día del fundador del muridismo que es Ahmadu Bamba, que luchó, pero luchó no con armas, luchó con conocimiento, luchó con la paz, con la bendición de Dios y supo agradecer a Dios porque llamó a la gente para que vengan en este día solamente para agradecer. Y armó este día, lo organizó para que nadie cobre nada a nadie para ninguna comida o ningún alojamiento. Todo se hace en la solidaridad. Esto es el símbolo de la cofradía Murid. Esto es símbolo del Islam que nosotros profesamos. Esto es lo que llamamos, esto es la sociedad senegalesa. No sabemos violencia, no sabemos lo que es. Lo que sabemos es trabajar, porque Serin Tuba lo que decía era, trabajar sin nunca fueses a morir y rezar como si fueses a morir mañana. Es decir, que vos tenés que trabajar como si jamás en tu vida ibas a morir, pero rezar como si tu, muerte, iba a ser mañana. Es decir, que trabajo y rezar es nuestro culto, es lo que sabemos, es nuestro símbolo y es lo que todos hacen. Así que gracias y les presento a los, a los representantes. salaamaaleykum. ¿Me vas a Espero que Mustafa haya hablado bien de mí en el idioma de ustedes. Sí, sí, sí, lo primero que decirles gracias. Gracias porque cada uno de ustedes, no sé si es necesario traducir, cada uno de ustedes cuando decidió en aquella tierra lejana del África tomar una decisión de tener que irse. Les costó, les costó mucho, son jóvenes, están en la mitad de cómo sigue esta historia y creo que cada uno tiene en su mano la esperanza, que es la verdadera razón que hace que un hombre deje su tierra, su familia, sus historias, para mirar de la mano de Dios cómo sigue mi vida. Creo que eligieron bien en la Argentina. Ustedes tienen un problema que yo le decía a las autoridades de ustedes. Son la primera emigración. La primera emigración, como la mía italiana, que bajó de una montaña hablando un idioma rarísimo, casi como el de Mustafa. Nadie le entendía nada y le decían que era un italiano bruto porque no hablaba el idioma local. Y como venía con la cultura de las montañas, mi abuelo venía siendo un hombre raro a una ciudad donde, sobre todo mis amigos españoles, tenían asentado a su gente más fina. Y así todo, nosotros los italianos, sin entrar en una consideración política, el presidente de la nación argentina es el hijo de un italiano. Bueno, yo espero que con el tiempo un hijo de ustedes que he visto pequeño ya dando vuelta, tome las responsabilidades de esta tierra, el otro Senegal, la otra tierra, su Argentina. Ustedes me hicieron bailar ahí y se divertían. ¿Saben quién era el raro ahí? Yo. Yo era el gordo que bailaba con los senegaleses recién. ¿Vieron que se puede ser cuando es distinto así? No es nada. He disfrutado, les agradezco a todos los que me contuvieron, me acompañaron, unos minutos, porque más no he podido, unos minutos de sentirme en la música de sus tradiciones y de su tierra. Seguramente, y para terminar les quiero decir, hace 20 años vino la colectividad china. ¿Saben quiénes son los chinos? Los de los ojos así. Bueno, como los del Senegal. Son parecidos a Mustafa. Jóvenes, altos, buenos mozos, elegantes. Son parecidos a Mustafa. Cuando vinieron los chinos tenían las mismas dificultades que ustedes, muchísimos. Hoy los chinos se integran en las escuelas. Los mejores compañeros de hijos míos son chinos, saben, estudian, se preocupan. Mis nietas tienen amigos chinos y los traen a nuestras casas y nosotros vamos a la de ellos. Esto es lo que la Argentina casi mágica nos ofrece. Por eso no lo dejen de aprovechar. Comiencen a ver que nosotros tenemos que aprender. Tenemos mucho que aprender los argentinos de tradiciones que no son nuestras. Tenemos que saber qué quieren decir cuando no hablan nuestro idioma. tenemos que aprender que ustedes también respetan las cosas de la Argentina como nosotros las de ustedes, que yo sé que lo hacen de sobra. Son muy respetuosos, ya lo sé. Pero no importa, la gente común, la gente que no conoce, que los ve caminar, que los ve estar, que trabajan todo el día, que son respetuosos, que son educados, nadie puede decir nada de ustedes. Eso es una cosa fantástica. Gracias por traer eso a la Argentina. Muchas gracias por traerlo. Y para finalizar, le queremos dejar a las autoridades de ustedes como testimonio un pequeño regalo. Pequeño regalo. Ayúdame, Juan. Que es la bandera de la República Argentina. estos colores que se hicieron con el cielo que se hicieron con el cielo y con el sol, tienen que ser sus banderas también. No solo donde haya una bandera el Senegal, tiene que estar esta. ¿Por qué les digo eso? Porque entonces todos tenemos un respeto para empezar, los que no entendemos, los que no sabemos. Estos son los colores. Este país es muy futbolero, es lo único que tenemos que analizar seriamente de qué cuadros son. ¿Por qué? Yo tengo lo mío, Sarrafián tiene todo lo contrario. Ah, él es de Boca y yo soy de River, le digo para que vean cómo es la mano. Entonces, si son de River tienen futuro, si son de Boca y bueno, lo lamento. Para terminar quiero decirles que ustedes ya tienen una autoridad en la Federación Argentina de Colectividades, que es Mustafa. Mustafa integra la comisión directiva toma decisiones con nosotros, que somos más de 40 colectividades, sobre el futuro que tenemos que hacer. Les pido un fuerte aplauso para Mustafa, porque es su compañero que nos transmite el orgullo de ser miembro de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y Sidifal. Sidifal aussi ñu ngi koy ziare bu baax. di ko sant. ci li nga xamante ne mooy président Samb bi nga xamante ne def na ko fii muy nekk ci agence wu FIFA nekk fi aussi présenté wu fii fekk si li nga xamante ne mooy bés bi yaakaar naa lu am solo la Sidi Fall benvenido y muchísimas gracias por estar acá con nosotros léegi lii lii nag mooy symbole fédération bi léegi aussi ñu koy jox ki nga xamante ne mooy président bu fédération bu daara murit bi léegi ñu ngi ko koy jox ngir maanaam aussi loolu représenté lëkkaloo bi nga xamante ne aussi ñoom bëgg nañ koo am ak fédération bi ak communauté bu Sénégal yëpp si après si et beneen bi aussi ñu ngi koy jox suñu papa suñu parent benn la rek ndax ci mbooloo mi la nekk mais aussi mu représenté ñu comme mag ndax mag dafa am solo dafa am importance ci bépp mbooloo boo gis donc aussi Amigos, Argentina en los pies, porque estamos en esta tierra. Senegal en el corazón. El futuro aquí, porque vamos a seguir creciendo, ustedes, todos nosotros. ¡Viva Senegal! Gracias, bravo, El señor Rodolfo viene acá en representación también del diálogo intercultural, que es algo muy importante, que todas las religiones se puedan juntar, dialogar, discutir, vivir momentos en paz, es muy importante. Así que bienvenido, Rodolfo. Bueno, como decía Mustafa, yo soy el diácono Rodolfo Sánchez Rubio, delegado episcopal en el ecumenismo y el diálogo interreligioso de la diócesis de San Justo. Y también formo parte de una mesa de diálogo interreligioso, que está formada obviamente por distintos líderes de distintas religiones. Y nuestro interés fundamental es también invitarlos para que formen parte de esa mesa. Pero lamentablemente la mesa tiene una serie de normativas y uno de los requisitos fundamentales es estar inscrito en culto. Por eso el coordinador de nuestra mesa se va a reunir el día lunes con líderes de, su religión para empezar a hacer el trámite y gestionarlo ante la Ministerio de Relaciones Exteriores para poder gestionar el certificado de culto, que no solamente van a ser reconocidos en nuestro país como una religión, sino que también la posibilidad futura de poder gestionar el documento de identidad para que puedan tener un trabajo digno y puedan ser respetados como realmente corresponde. Así que le vamos a pedir a nuestro Dios de la misericordia, al Dios del amor, que con su manto los cubra, los proteja y los amen Sidi eh, yow xam naa suñu frère nga yow tamit <laughs> waa ñu jox la rek nga nuyu mbooloo mi ndeysaan man asalaamualeykum mbooloo mbooloo mi dama ñëwoon ah, dama ñëwoon fii mission man maa ngi présenté wu Sidi Fall laa tudd nekk agent de jour adhéré Milan ma nekk premier sénégalais bu indi fii ci dëkk bi Argentine xale sénégalais yi ak xale yi gambien yi am na ci benn xale boo xam ni mu ngi soo ko commencé ren ñu koy wax Ousmane Ndong mu ngi ci équipe bu nekk Lanús année bi yëpp mu ngi commencé football fii ma bëgg yéen senegale yi tey li mu doon bisub màggal tuuba mu doon bis boo xam ni sëriñ bàmba moo ko jaayante ba tey mu am lii mu am comme li ko seen waxe léegi bu fayoo woon li yëpp du ko am kon bis bi ak teewaay bi lu nekk dama ko def pour xam bisub sëñ Touba bi fan la benn jëwriñ dimbali ma ba teg ma ci yoon ba ma ñëw fii ma ñëw gis seen toogaay bii ngeen toog fii mu doon xol boo xam ni waxuma dara mais su ma fi fekkee communité espagnole yi communité italien yi fekk fi Venezuela fekk fi ñëpp sama xol dafa sedd gis ni ngeen toogee sëñ Touba fa mu nekk xolam sedd na sëñ Touba fa mu nekk xolam sedd na waa këram xolam sedd nañu tey lii ngeen màggal nii Sénégal nii lañ ko defee sama xol dafa sedd man bu ma demee Sénégal dinaa am lu may wax su ma demee itali dinaa am lu may wax que communauté bi yaakaaru moon ni lii am na Pastef bii lii am na kon maa ngi ñaan ci bisub sëñ Touba bi jàppoo bi ngeen jàppoo yàlla na yokku lii ngeen def nii ngeen def mu doon sama xol dafa sedd ba mu maa wax ma am émotion bi ma am musuma ko am ba mu juddoo ba tey sama xol sedd na ci seen ànd te ànd mooy doole yéen a ngi àll fii sori na trop ay kilomètres i kilomètres ngeen def ba agsi fii kon te sénégalais ci kaw ca kanam rek fu ngeen toog ak fu ngeen di dem xam na ngeen xam ni sëñ Touba mi ngi seen wet bu leen tiit dara lépp lu ngeen yaakaar fii di ngeen ko am man maa la wax loolu ndegem lii bu rëy laa am ngi seen ngi mi ngi kenn ku ne nanga xam ni bis ni ki tey yaa ngi ànd ak sëñ Touba foo jëm amul dara lu ngeen tiit te te te rusuma ci senegale fu ngeen dem rekk ndam ci kaw ci kanam sama xol dafa sedd ci yéen seen màggal gii ngeen màggal tey yàlla na ko yàlla na ko sëñ yëg ca fa mu ne te sëñ Touba yëg na ko de bis ni ki tey nangeen xam ni bu leen tiit dara kenn mënul ci yéen ci dara sëñ Touba mi ngi ci yéen mi ngi ànd ak yéen ak fu ak fune te yéen ñëpp yéen ñi toog fii di ngeen am réussite ku ci amul këyit dina am këyit ku ci amul këyit dina am këyit yéen ñi fi teew nii ci bis bii tey bisu yoor yooru sëñ Touba bi na ngeen calcul ku ci ne amul tiit di ngeen am këyit te di ngeen yóbbu dara ci réew mi te di ngeen taxawal dara sama xol dafa sedd sama xol dafa sedd boo gisee may téye micro bi mënuma ko bàyyi sama xol dafa sedd ci biir jataay ak nii ngeen defee nii yéen ñëpp ngeen defe nii la tuubaa def nii la Italie def nii la France def nii la ñëpp def kon lii ngeen def nii na leen wóor ni du pertement sëñ Touba yëg na lii sëñ Touba fa mu nekk yëg na lii yëg na lii ngeen def nii yëg na ko calcule leen ni yéen ñëpp bis ni ki tey lépp lu ngeen yootu suñu borom dina ci def loxoom sëñ Touba def na ci loxoom yéen ñëpp ci yéen ñi fi toog ñëpp ay ci kàttanu yàlla maa ngi leen di dolli maa ngi leen di dolli li ma leen di dolli ngeen gën a jàpp jàpp ngeen gën a jàpp jàppoo bi puisque man bii mooy première fois mu fi ñëw dinaa fi ñëw dinaa fi ñëwaat te tax ngeen ma ñeme puisque fii mën naa waat ni amul benn sénégalais bu mu sa taxaw fii di fa football fii ci benn club ñépp a may contacter mais sama xol sedd na tey dinaa gën am gën a am fitu di fi indi xale yi puisque lii ma fi gis nii moo ma ñemeloo te lépp sëñ Tuubaa merci beaucoup waaw duma présentateur nag te aussi suñu jëwriñ kenn mënu leen koo présenté waaye ñuy kontaan ci moom di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dooleel dooleel mboolem mi nga xamante ne mu ngi topp ci moom di topp ci ñëpp ñi nga xamante ne rek mooy former organisation yi moo comité yeeg muy lépp li nga xamante mooy daara murit muy daara tiijaan muy bépp murit wala bépp julit boo xam ne yaa ngi fi rek ci dëkk bi muy chrétien ak képp koo mën a doon rek donc nañ ko ñaanal te ñaanal ñëpp ñi nga xamante ñoo koy gunge te ñun ñëpp rek ñu pare ngir gunge ko ci lépp li nga xamante moo moom lay liggéey ndax lépp lu jëriñ moo lu ko jëriñ rek def ñuy jëriñ ñun ñëpp comme sénégalais donc sëñ Talla ñu ngi lay ñaanal te di la ziyaare bu baax. kontaan ci yow bu baax na kenn ku nekk wax jërëjëf Serigne Touba Serigne Mouhamadul Mountakha yal yàgg jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba Serigne Mouhamadul Mountakha yal na fi yàgg tëwee. ginnaaw loolu nag ñoo ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala bu baax di junni suñu sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu jàmbaar ji xaadimu rasul suñu borom yokk ay leeram te taas na ci barkeel bis bi nag wax dëgg yàlla tey suñu kàddu ci bari cant yi maanaam kàddu yi kàddu yi cant la ak kàddu yi ngërëm ak kàddu yi mbégte ndax bis bi tey képp ku fi teew ku nekk rek sa xol sedd na dañuy ñaan nag ci seexul xadim mi nga xam ne moom lañuy liggéey liggéey bii bis bu ñëw rek daq dàq bi jàlloon te lii day wane ne sëñ Tuubaa maanaam bisab teyam bu nekk gàcceel na bisub démbam ndax màggal bu nekk jaar na fi waaye bis bii moom ku ne xam na ni maa musu fi am te yoonu sëñ Tuubaa nag noonu la baaxoo maanaam bu ñëw rek day gàcceel bi jàll fi mu toll bu déwén bi day gàcceel bopp tey bii waaw ñoo ngi santal Serigne Touba baax a baax nag di jaajëfal mboole mbokk yi nga xam ni ñoo teew ci liggéey yëpp di ko tàmbalee ci mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew di ko tàmbalee suñu daayira fédération Seydi Hadji Malick si bi fi nekk ci njiital sëriñ Mouhamadou Ba di nuyu bu baax waa administration bi nga xam ne mooy ñoom ñoom sëñ mu sëñ Lamine moom it ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar ci liggéeyam bu rafet bi nga xam ne def na ko ak mbokk yi ko àndal. di jaajëfal lu baax Moustapha moom it wax dëgg yàlla ci taxawaayam ndax da yàlla bis bi ba mu teroo ba léegi moo ngi xalaat ñuy jokkoo muy waxtaan lépp xalaat bu mu am boo xam ne day jëmale liggéey bi kanam rek maanaam moo ngi ci doon waxtaan ak ñun ñoo ngi ko ci jaajëfal lu baax di sant kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp ndax lii mbégte la mu rëy ndax kilifa yii fi teew ay kilifa yu mag lan yoo xamante ni bii bis bi rek moo leen yëkkati ak mbégte te kenn ku nekk dégg na kàddu yi fi wax feeñal mbégteem ak yéeneem ngir ànd ak ñun liggéey pour jàppale ñu ci communauté bi nga xam ne moom lañ yor muy communauté mouridisme bu ak sëñ Touba ku ne xam na ne xàjjalu amul xaaj ak seen moom jàmm rek la woote sëñ bee bédduut kenn moo tax ñun ñun li ñuy wax rek maanaam fu nekkee loolu lañ koy wax ñun moom fi ñu taxaw mooy képp koo xam ne amal na nañu njariñ amal na amal nañu njariñ communauté bi maanaam ànd na yow pour liggéeyal communauté bi yëpp ak liggéey Serigne Touba waaw loolu rek lañ soxla kon nag li may wax ñun mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ñooy ñoo fi nekk di ay sénégalais yëpp maanaam ñu gën a yaraat jëmm yi bu baax a baax gën a ànd ak yar gën a ànd ak teggiin gën a gëm suñu bopp gën a nekk ci ak njub gën a fonk liggéey bi bu baax te xam ni dara jombunu dara dara jombunu nañ góor góorlu te liggéey te yar jëmm yi bu baax a baax a baax xam ne sëñ Touba ab yar rek la digle sëñ Touba ab yar rek la digle ndax bu demee ca nax ju jàngale na fa comportement murit nañ la war a mel waaw mooy li xam ne ñun moom la ñuy santaane ci ñun ci lool lañuy jéem a ci loolu lañuy jéem a nekk ci la ñuy soññ mboolem communauté bi yëpp nañ ànd ak yar ànd ak teggin fonk suñu liggéey te te bañ a xuloo ci dara bañ a xëccoo bañ a xiiroo bañ a ŋaayoo ànd nekk benn def wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu comme nañu ko alxuraan digale ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni laa yadxulul janna ata tuminu wala tuminu ata tahabu du ngeen dugg àjjana mukk te gëmu leen te seen ngëm du mukk te bëggantewu leen kon nag bëggante gi ak ngëm gi mënta ñàkk kon nañ gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax ndax inna allaha yuhibbul lazina yuqatiluuna fi sabilillahi safan kaanu bunyaanun marsuus yàlla bég na ci kuréel bi nga xamante ne bii dañoo ànd nekk benn di yëkkateendoo di tegandoo kon nag loolu mooy moom man sama kàddu en tant que jëwriñ ngeen doyloo ma jiital ma mooy sama kàddu tey mooy sama kàddu suba ñu ànd nekk benn bañ a xiiroo bañ a xëccoo bañ a ŋaayoo liggéey fonk ko te bañ liggéey te bañ koo yàq liggéey bu baax lu waaye mën a gëstu ci am njàng tamit ci espagnol bi nga jàng ko ndax nga am njàng it mënta ñàkk ci dundu doomu aadama sëñ Touba loolu léppam da koo jàngale kon loolu ñu góorgóorlu ci cours yi nga xam ne moom la Moustapha mi di defal eh, nit ñi képp ku ci mën adhéré wu nga inscrire ci dem di ko jàngi ndax am njàng moom minal mahdi ilal lahdi comme ni ko yónni sallallahu alayhi wasallam maanaam njàng moo ngi tàmbalee fi nga juddoo ñu teg la ci sa fi nga juddoo ci bees bees bi ba fin la tege ci koosu bàmmeel waaw loolu ñu góorgóorlu ci bu baax a baax gën a yaraat jëm yi ñu nag dañoo bég wax dëgg yàlla suñu xol dafa sedd ba liñ yéene lépp mënuñu koo wax di sant suñu kilifa gii fi ñëw léegi jëloon kàddu moom it ñëwoon fii ci benn mission bu mu doon bu mu fi andi woon ak mbokki Sénégal yooyu mooy football yooyu moom it ñoo ngi koy baax di bég ci moom di jaajëfal ñëpp suñu xol dafa sedd wax dëgg yàlla liñ wax lépp mënuñu koo wax xam naa dañ yemale foofu kàddu yi xëy na dina ñëwaat ci kanam sëñ Moustapha kon nga wax rek mbokk yi gërëm na leen baax suñu xol sedd na bu baax fa mu tàmbale ba fa mu yam incha allah macha allah Eh, bueno, muchas gracias, eh, Jorin eh, como ustedes lo saben, eh, es el líder de la cofradía aquí, de la comisión, de la Federación Muri, acá en la Argentina. Y agradece a cada uno de ustedes por su presencia. dice que está muy contento por su presencia, tanto ustedes como representantes de la, de la federación, pero también como representantes de cada país de ustedes, porque son de distintos países. Agradece también a nuestro compatriota Siri, que está acá con nosotros, y a, también al señor que está acá y también que tomó una palabra muy importante. Sensibilizó a la comunidad, que es muy importante también para que cada uno que pueda ir, estudiar, capacitarse en algo que lo haga. Insistió en el respeto que tenemos que tener entre nosotros, pero también hacia los otros, y respetar la diversidad cultural, el intercambio, que es algo muy importante. Así que la palabra mayor de él es agradecimiento por este día, porque hemos o ellos han logrado una organización espectacular y rezan para que la organización que viene sea mucho mejor y siempre compartiéndolo con cada uno de ustedes. Y el regalo que ustedes dejaron hoy acá es muy simbólico y representa una cosa importantísima para él y como para toda la comunidad senegalesa. Así que de parte de toda la comunidad le decimos gracias a cada uno de ustedes y gracias, muchísimas gracias. y gracias a las mujeres que veo que están en el fondo también cocinando, repartiendo, gracias a cada uno de ustedes que sean argentinos, de otras nacionalidades, inmigrantes que están ahí, en particular las mujeres que siempre son muy importantes para la integración y para todo lo que tenga que ver con el respeto de la diversidad cultural. Así que gracias a ustedes y a ustedes senegaleses, Malen Dinan, Bulen Tit, Bulen Ragal, gëm leen seen Tuuba gëm leen seen cosaan gëm leen seen aada continent liggéey te ànd leen yéen ñëpp barke yàlla jàmm rek ngeen di am jërëjëf